gars yi ñu leen nuyu di leen jaar yéen ñuy suivre Sport ñu ñëw leen ci benn vidéo wax ci Pape Matar bi nga xam ne tey mooy révélation bi dugal deux bi ci CAN bi xale boo xam ne def nga sa premier match ci CAN dugal deux bi lu rëy ay kàddu ci xale bi daañu ñëw ci kàddu El ko bëgg a xam loolu topp ñu ndax ca jeexantalu bu dee ba ñëwee mais laata loolu dañuy wax yéen ñi nga xam ne gan ngeen ci page bi nga xam ne mooy Roma Sport ngeen abonné te ngeen bës li nga xam ne mooy cloche notification bi pour ngeen mën a suñu vidéo à tarel fi ci no Sport bu ko defé ñoo xale ji xale bi nga xamné moy Camara Camara bi nek lemiñ Camara nek jeune talent tay def max bu reur yi waxu sax dugal bi bi mais dafa jouer max bu xamné ne c'est exceptionnel nek homme du match yi dugal deux bi ah animé milieu terrain bi mu nek ben xale bo xamné tay franchement visage bi mu wane moom lañ ko xamee genre ba visage bi la won do na fram muy dugg di dribble nek homme du match Yvain visage bi la won do na frappe. di dóor muy dugg di nekk on match ba ñëpp wax ne coupe du monde u bi Lamine Camara bu ñëwul moo tax Sénégal teel toog te finalement loolu tey koo fi mu nekkoon ci coupe ma na nga bi sax kon Lamine Camara am na benn deret ndaw bu ñëw am beneen fraîcheur bu yokk ci équipe bi ki nga xam ne mooy El Hadji Ousseynou Diouf wax ki nga xam ne mooy Lamine Camara jeune talent man football la Sénégal na ci moom yaakaar duñ ko mu ñëw xar kanam bu mel ne bi man wala bu gën kawe ndax bu jógee ci kaan bi kon bu dee club boobu nañ ko jox beneen cër mam benn respect Lamine Camara li ma gëm du toog Metz comme Pape Matar dafay jóge dem club bu gën a mag dem seet sans mais franchement daal tey xale yi xool yëpp sedd nañ waaw Lamine Camara tey franchement mieux terrain mel ni ñu koy doggi ci gën fam Sénégal malgré Cheikh Kouyaté gànn ki mais xale bi dañu gën a offensif dàq leen football ngeen abonné ngeen commentaire merci beaucoup am ngeen jaajëf